mbokku internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme mu 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique famille sénégalaise tey mu yemook épisode 40 euh, ñu door ko ak séquence bu njëkk bi euh, gis ni Simone Penda moom donte xale la waaye nag moo gën a muus tey nag moo gën a ñaaw njort ki nga xam ni moo di euh, Bigué ndax biige moom dafa naïve ni yaayam lépp lu ñëw rek du xalaat dara day jàpp ni lu war a am la naturel la maanaam rek dara nekku ci waaye Simon Penda moom mi ngi bàyyi xel biige bu baax a baax foofu nag ñu gis fa ni xarit dina gën doomu ndey ndax Simon Penda donte ci période bag la nekk euh, waaye nag moom euh, ci ki nga xam ni moo di euh, biige la gën a bàyyi xel ndax xam na ni biige kat la te it nag ñi ko noonoo dañoo bari ba tax saa su ne da koy may gën rek ngir xam fu muy teg tànkam bu baax a baax ñu jàll ci Batoor Batoor nag yaakaar naa Simon Penda lu mu ñaaw njortu rek tey ji lim doon ñaaw njortu sànku yàqal biige ba du am bag ba tax nag mu daal di yónni benn ki nga xam ne moo di jigéen ngir rek mu daal di fexe ba bi biige daal di dëgg benn téere boo xam ni moo koy yàqal lu bari loolu nag tax na ba biige saa buy dugg ci sald de classe bi rek mu daal di xëm wala bu duggee ba commencé di kii rek ba commencé di examen mu daal di xëm loolu lépp nag ngir rek mu bañ am li nga xam ni moo di euh, bag bi loolu nag tax na Simone Penda daal di euh, dem ba gis fi nga xam ni fa la def euh, téere bi ba noppi nag gis na ki nga xam ni moo di Batoor muy wax ak même jigéen bi nga xam ni moo interpellé woon euh, biigee euh, ba tax nag ki nga xam ni moo di Simon Penda mu dem euh, kër ñoom Mariatu ngir wax leen li nga xam ni moom la gis waaye Bigué moom ba tey rek moom delloo na lépp ci loxole yàlla ndax jàpp na ni ki nga xam ni moo di Batoor mënu koo tere am waaye nag comme li ñuy wax saa su ne rek ku gëmul xar ba fuufa xar ba fuufa ñëw na la fuuf ndax ki nga xam ni moo di Bigué téere bi nga xam ni moom la dëgg nar na ko yàqal bag ndax épreuve yi nga xam ni yi eh, yu bëri defu ko te loolu nag mën na koo tere am li nga xam ni moo di bac bi eh, ndax saa bu waree def benn épreuve rek mu daal di xëm dem hôpital eh, ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni koddu di jabaru àll moom nag wute na bu baax a baax ak batoor ndax moom day jàppale Mariétou di ko soutenir moom ak doomam waaye nag Mariétou comme li ñuy wax rek moom daa néewal trop maanaam deful dara muy dara lépp lu ñëw rek moom da koy teg ci loxol yàlla ba tax nag ñuy wax saa su ne yàlla su la buggee dimbali voyante bi nga xam ni moom moo gisoon euh, téere bi nekkoon ci saagu bi nga xam ni moo di biige gisaat na li nga xam ni moom moo xew ci biigee ba tax mu ñëw di xamal Mariétu ne ko euh, biige faaw mu génn ci école boobu sinon rek euh, du baax ci moom mën naa dem ba ñàkk ci bakkanam muy loo xam ne kon lu doy waar doy doy waar doy waar la ndax tey jii ni Mariétu moom moo war a nag daal di réagir daal di def nag loo xam ni moom la naan lépp bàyyee naa ko ci loxol yàlla loolu moom fajul dara ndax comme li ñuy wax rek euh, yàlla yàlla bay sa tool ñu jàll ci euh, Batoor moom nag ba tey moo ngi wéy di euh, sëriñtu ki nga xam ni moo di maar mu mel ni moom bàyyiwul kenn ndax li nga xam ni def na ko ci ki nga xam ni moo di biige loolee doyu ko mu ngi gën a sëriñtu maar ngir rek à chaque fois maar di jël défense am ndax mu mën di atteindre objectif am fu mu toll mu mel ni kon Batoor nekk na koo xam ni société sénégalaise bi ba tax série bi mën nañu ne reflet la ci li nga xam ni moom moo am ci euh, dëkk bi kon mbokk internet dinañu leen topp ba xam fu waaneen di mu jëkki gëtam waaye laataa boobu woyee leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte ba si cloche notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëfee à très bientôt incha allah